Ramadan da xayaati bismillah alhamdulilah ñu ngi ñëpp di jaajëfal ñëpp di am mbégte di dajawaat ak yéen fii waaye bi passé beneen cadre muy cadre social ñëpp xam ne ne ci am teranga dafay dimbalante nit ñi socialement am ay nit yu ko wóolu ci jëmmam ak ci njort ragal yàlla bi ñu am bi mu bi ñu am si moom jël seen alal jël seen lépp di ko dimbali di ko dimbali donc ñu ngi waaj a dem jëli benn ravitaillement pour yóbbu ko euh, daara jëriñ bi nga xamante ne nii moom nañ leen wanoon jamono yee si gannaaw léegi loolu la ñu bëgg saxal chaque weer bu dee ñu jënd ravitaillement yóbbul ko jëriñ mi xam naa ku si bëgg plus de détails da ngay ñëw si suuf ma wax la expliquer la dugal la si groupe bi piété et bienfaisance la tudd foofu dañ fa nekk di dimbalante kase léegi nu ñu ko doon defee si weeru koor bi xam naa ne amaana euh, jamono yi dootul mën a nekk léegi li ñu décidé mooy loolu dañ koy récolter. buñ ko récolté ñu jëndee ko ay dund ñu xool ni nga les femmes veuves les femmes divorcées les familles en difficulté les femmes en couple avec leurs enfants en difficulté des femmes divorcées avec des enfants en difficulté comme nañ ko xamee man góor laa waaye am na góor yoo amuñu responsabilité nous avons amuñu amuñu fayda ragaluñu nous nit un an deux ans trois ans dix ans bés ñëw divorce ngeen bu la neexee moom bul ko toppatoo te boo amee ngor sax sa ngor warul la may loolu waaye non seulement doo ko toppatoo moom yow sa doom yi nga jur doo leen toppatoo dem nga jël beneen jigéen yaa ngi seex moom am nga am moom doom yow yaa ngi bàyyi doom ya nga jur ak seen yaay ba nga jotel jotex seen yaay mu nekk sabab nga abandonné say doom doo leen jox dund doo leen fayal doo leen lii seen yaay liggéeyul mara day taali bu nekkee mère au foyer ligéyul yore ay dom ñepp xam yore xalé nu mu metté koku kan mokay koy dimbali mbokk yi ñun goor ñi nañu ragal yalla ñun goor yi nañu ragal yalla dañuy def suñu digganteex suñu borom te xamna na sa yaayu dom nga xulox mom warul tax nga abandoné ko ba abandoné ay domam parce que jural na la jox na la bopam bay fi ay 2255500 mille jox la bopam jox lo li gëna risque ci mom li gëna cher ci mom lo xamanteni ni kenn musuko won gis kudul yaw tay ngeen divorcé tay amo lo koy def ludul yaw goor nga bayiko ci xeer yi bàyyiwaale say dom ci xeer yi lolu du ngor ngor bo nekké sa jabar yalla say ñew yalla dogal ngeen tas sa ngor war na la mëna yobbi même bu amé benen jëkkeur même bu amul benen jëkkeur sa weer bu dé nga am lo tek ci loxom nga dimbalé ko ko jaamu jaamu si yàlla si moom xam ne yàlla moo dogoon dogaloon seen diggante moom moo ko tas waaye defoo loolu nga bàyyi say doom loolu du ngor loolu andu tax ragal yàlla mbokk yi nañ leen góorgóorlu. waaw voilà ñoo ngi noonu di saabu pour waajal bu leen ñu fàtte si ñaan fas yéene yóbbul ravitaillement bi daaru girim bi waaw noonu ngeen koy tege waaw na tëdd noonu waaw. dañoo tëj nag gorom euh, parce que à partir de gorom doo yegg pour dem Diender mais alhamdulillah alhamdulilah euh, dinañ jaar euh, gendarmerie Sangalkam am na ko ñu boole kooku pour ñu jéem a ut autorisation incha parti baa ba ñu ngi leen di woo lii moom mooy liggéey bi donc dajale sama cinq mille sa cinq mille cinq mille keneen dix mille keneen vingt mille keneen trente mille keneen cinquante trente quarante dajale ko jëndal daara jirim bi chaque weer bu ravitaillement di jëndal tamit lii nga xamante ni moom mooy xaare lii fële lañ koy dugal xaare xoolal lii dañ koy dugal fële mu toog waa Euh, bu ko defee liggéey bee ngi noonu groupe Piété et Bienfaisance su ko defee ñu ngi sàkk yéen ñëpp seen ndimbal ngeen ñëw ñu jàppalante ci di dimbalante néew di doole yi di xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay nécessité pour ñu kiiwal leen ko pour ñu jëndal leen donc képp koo xamante ni bëgg na bokk ci groupe bi BT bienfaisance mën na ma jël suuf ñu dugal ko cotisation yi amul li nga xamante ni moom mooy montant fixe amul c'est pas obligatoire bu dee dinaa def fàttali su ma defee fàttali bu ko defee euh, nit yi ku nekk loo am rek nga indi incha allah. ñi weeru koor mi ngi teru si euh, ñu ngi si période confinement ñu ngi si période couvre feu ñu ngi ci état d'urgence li nga xam de lañ daan def doonuñu ko mëna defati out récolte def ay séance de rupture de jeûne euh, nit ñew di doore di ñew di dogu di def ay xëdd nit ñew di xëdd et tout mënatul nek ñu ngi talal lepp loxo si euh, wata ayunu alal bi di wata wala ta ayunu alal ismi wal udwan euh, ñu dimbalante ci mbax ak ragal yalla ba ñu dimbalante ci nono ak def paka yonent bi alayhi salatu wassalam neena kep ku wor ba ngor nga jox ko limu doge da ngay am fay budul ci mom fayam dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwaat di wax ni sarax dafay euh, effacer ay bakkaar comme ni ndox di fayee safara. voilà alhamdulilah salaamaaleykum euh, yegsi nañu kii moom mooy Diallo et frère fi lañu war a jël ci li nga xam ne euh, ñu tebbee ngi nii voilà yegg si nañu dañoo fekk sax soxna si si liggéey donc ñu ngi tey ñu ngi def lépp voilà may nañ benn googu am na saaku duun am na gorosu suukar am na lakk am na chocolat spaghetti yi nii am na beneen eh, meew am na macaroni am na vermicelle voilà lii moom moo nekkoon ci kit bi donc di jaajëfal ñëpp voilà dafa ñu noonu voilà xaalis location bi boobu quarante mille పండుకుంటుందో లేకపోయినా fàtte di ñaanal rek ñi dimbalal jox ñun ñëpp inshallah dem ma defal leen jàmm ma yokk sutura lagi. ma barke liggéey bi wala ubur xéwal yaaram ma may gudd fan ak wér yaaram liñ man ba lañ defara kon ñu ngi invité ñëpp si liggéey bu noble bi di tàllal ñëpp loxo di leen xamal ne ñu ngi leen di xaar si lii nga xamante ni nii moom mooy weeru koor bi ku nekk loo am sama dërëm sa dërëm sa dërëm sa cinq mille sa dix mille sa quinze mille ñu dajale ko su ko defee ñu koy jënd ay ravitaillement di ko yóbbul néew du doole yi ñu am lu ñuy ndogoo weeru koor bu commencé ba ba keroog weeru koor bi di jeex ndax bul fàtte ni ceeb bi ngay yóbbu dañ ciy togg benn pepp bu nekk suñu borom mën na la ko bindal ay yiw ba fay la ci tuyaaba ubbi la ci ay buntu wërsëg رمضان ده حياتي سما على مماتي